asalaamaaleykum bokku julli ak bokku taalibe yi di déglu jot nu ndigal sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des mourides yal na fi yàgg te ànd ak wér ak sëñ Amdi Moodu Mbenda xalifa Maam Cheikh Ibrahima Fall ak kan sëñ Abdou Rokhaya Fall xalifa sëñ Mortala Fall ak sëñ Daam Abdourahmane ak sëñ Abdou Sakho ñu jëm nag ci bis bi ñëpp doon nekk sëriñ Cheikh Khadim Fall moo leen di yëgal màggal ak cant maam Cheikh Ibrahima Fall bi mu baaxoo daan def at mu jot ren nag ñu jàpp ko samedi bi jëkk ci weeru korité muy le 7 mai fu ñu koy defe nag ci Assane Demba Diop ndam bis bu rëy ñu ngi ko yëgal nag sëñ Bassirou Mbacké moom Cheikh Abdou Khadre porte-parole khalife général des mourides di ko yëgal nag son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal ak kan le ministre d'État Mbaye Ndiaye waaye di ko yëgal ministre d'État maître Madické Niang taalibe Serigne Touba bu mag ak kan nag honorable député Ñaañu Touré mbooleem xalifa doomi Serigne Touba yëpp ak njaboot gépp nag bàyyiwul kenn Serigne Sidi Mbacké xalifa Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ak kan Serigne Dame Atta Mbacké ak njabootu Serigne Ibrahima Mbacké yëpp sëriñ Cheikh Saliou Mbacke ak njabootu sëñ Saliou Mbacke ak kan sëñ Ahmadou Mokhtar Mbacke xalifa Daaru Xuddus ak njabootu Cheikh Moustapha gépp di ko yëgal nag sëriñ Cheikh Say Mbacke ak njabootu sëriñ Cheikh Mbacke gépp sëriñ Abo Mbacke xalifa sëñ Fallou Mbacke ak njabootu sëñ sëñ Mamour Mbacke xalifa Cheikh Mourtada Mbacke ak njabootu gépp sëñ Mawla bi Mbacke xalifa sëñ Abdoulahi Mbacke borom dari ak njaboot gépp sëriñ Cheikh Mbacke ak njabootu sëñ Abdou Khadar Mbacke di ko yëgal nag sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Sidi Mokhtar xalifa sëñ Bara Mbacke soxna maam Bousso Mbacke xalif de sëriñ Abdou Samad Mbacké xaadimu rasul ak kan sëriñ bi nee ñu ngi ko yëgal sëriñ Amsatu Mbacké ak sëriñ Abdou Latif mbakke moom Cheikh Murtada ak sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacké moom Cheikh Moustapha moom Cheikh Modou Bachir ak sëriñ Mbacké moom sëriñ Modou Bousso waaye nag di ko yëgal sëriñ Abdou Lahad Mbacké moom sëriñ Cheikh Thierno Moussa Abdou Karim sëriñ Bassirou Anta Niang njabootu maam Thierno Ibra Faty yëpp sëriñ Mamor Mbacké xarifa sëriñ Massamba Mbacké sëriñ Abo Mbacké ak njabootu mam Cheikh Anta Darou Salam yëpp ñu ngi leen ko yëgal si Abdoulahi Mbacke xalifa Mamour Diarra borom saam ak kan sëñ Mandoumbe Mbacke ak njaboot yëpp di ko yëgal nag alaaji sëriñ Moulay Mbacke xalifa sëñ Balla Coro sëñ Basiru Mbacke ak sëriñ Cheikh Jooreel Mbacke ak njabootu seen Cheikh ab sa gépp waaye di ko yëgal sëriñ Saadu Mbacke xalifa sëñ Afe ak njaboot njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp sëñ Amdi Xadi xalifa sëñ Assane Fall ak njabootam sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng xalifa sëñ Modou Moustapha Fall ak kan seen Cheikh Cokke Fall xalifa sëriñ Mbacke Fall sëriñ Cheikh Fall Mbawar xalifa sëriñ Aliou Fall Mbawar sëriñ Cheikh Ngunda Fall xalifa sëriñ Ngunda Fall ak kan sëriñ Talla Fall xalifa sëriñ Ablaye Fall Ndar ak kan sëriñ Fall Fall ak mboolem njabootu sëriñ Abdou Sakor Fall sëriñ Bada ak njabootu sëriñ Bassirou Fall gépp ak kan nag sëriñ Assane Fall xalifa maam Saliou Fall ak njabootu maam Saliou gépp nag waaye du ko yëbal mboolem Cheikhou Cheikh Ibrahima mu tuddee sëriñ Mbacke Ndiaye xalifa sëñ Baara Ndiaye ak mbooleem ku Cheikh Ibrahima seexal tudd naa cheikhu maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp di ko yëgal nag mboolem seexu sëñ Touba yi sëñ Dame Abdourahmane Lo ak njabootam Cheikh Adama Guèye ak njabootam sëriñ Mababou Guèye ak njabootam sëñ Ibrahima Sarr Ndiagne ak njabootam ak kan sëriñ Cheikh Issa Diène ak njabootam sëriñ Daaru Assane Ndiaye ak njabootam sëriñ Massamba Sam ak njabootam ak kan nag sëriñ Mbaye saar njaareem sëriñ Mbay Saar ngën akan sëriñ Ali Diouf Lambaay sëriñ Babacar Njaay cargaan sëriñ Mor Maane jàmbaar yango akan nag ëhlul dara manko Amar Sugu Joxumpa Saadi Touré fu dara manko nekk ci biirim ak bitim réew sëñ bi neen ñu ngi lay woo di ko yëgal nag njabootu sëñ Mat Jow Paxa ak kan nag sëñ Moodu Fadiama Ñang sëñ Moodu Xari Si sëñ Malick Basin Si sëriñ ma ñaaw sidda ak njabootu sëñ Bamba sidda ak kan nag njabootu sëñ Moussa Ka gépp bàyyiwuñu kenn waaye njabootu sëñ ma dibba si la sëñ bi nee na mi ko yëgal ñoom ñëpp di ko yëgal nag njabootu sëñ Omar Diop gépp ak njabootu ki sëriñ Tuubaa jëkka ba ca sëñ ma si a waaye sëñ bi nee na mi ko yëgal mboolem fédération daayira yi nekk ci biir Sénégal rawatina waa Ndakaaru seen bis la kon na ko ñëpp waajal le 7 mai daal lay bàyyiwul kenn di ko yëgal nag jëw nañu Alaaji Mbàkke Fay mi yor kaddu xarit général di mari ci biir Ndakaaru ak mboolem fédération Massalikul Jinaan yëpp ñi ngi leen ko yëgal bis mi ngi ko yëgal kuréel yi si kurlaa yëpp ak daayira xasida ak mboolem fu taalibe ne ak ñi daan kurus di jiidu cant ak di tudd yàlla sëñ bi bàyyiwul kenn de ñu ngi koy gën a fédération daayira xidmatul xadim yëpp yi ne ci biir réew mi ak bitim réew Serigne Mbacké Cissé ca Touba ak mboolem mbawar mbawar yëpp seen bis la taala sala ñu ngi ca njaañ ngañ caam ca mbuur papa ndaw ca Thiès daam deer ca Louga papa jaañ ca Ndar ak ma Jóob Cissé ak Ali Mbeng Jóob ñi ngi leen ko yëgal Serigne Am Ndiaye Ibrahima Gueye Moustapha Diouf transporteur ak kan nag Badou Seck Sicap Liberté 2 ñooñu waa Ndakaaru la ak kan nag Khadim Bamba Diop Ouest Foire Aboubacrine Edwin Djibril Fall Pipcom ñu ngi koy gër bis bi jëriñ Abdou Aziz Ndiaye Bassirou Gueye ak Mame Thierno Diop ak mboolem fédération yi ñu ëmb yëpp ñu ngi leen ko yëgal di ca woo nag Serigne Mbaye Niang Alaaji Diawara ca yëmbal Serigne Modou Ngom ak mboolem fédération Baye Fall tëngeej ak kan nag daam Ndiaye ca Tëngéej ak mboolem kuréel Jazbul Murid ñi ngi leen ko yëgal ak Abdoulahad Jaxate ca Sonata ñi ngi ci woo Issa Fall jàmbar ak mboolem daayira France yëpp daayira Sëñ Tuubaa ya fa nekk Modou Fall président daayira mam Cheikh Ibra Fall Serigne Khadim Sylla jaale batal mu raq ak kan sëñ Xaadim Mbooj Jawartullah sëñ Xaadim Sylla ak Serigne Abdou Thiam ak Serigne Jaaxa Diop ak Dame Bamba Kassé ca Paris ñi ngi leen cay woo ak kan ca Suisse nag Moussa Sène Italie Pape Demba Diop di ca woo nag waa kuréel bu mag ba kuréel téré juillet xam ngeen ni sëñ bi am na bis bu rëy bu muy def France le téré juillet waa kuréel ba sëñ bi mu ngi leen cay woo Italie Pape Demba Diop ca Milan Moustapha Diop Ablaye Kane Maysa Diop Malick Cissé ak mboolem waa daayira Serigne Cheikh Khadim fa yi féete foofu yëpp ñu ngi leen cay woo waaye ca lecce Serigne Issa Ngom Mamadou Faye Omar Ngale Dieye waa kër Moustapha Sène ak mbooleem taalibe bu féete ca ma nag ñi ngi cay woo Mama Mbeng ak mboolem taalibe yi fa féete ci Sied Daouda Cissé Espagne Aliou Guèye juuf Diouf Ablaye Touré Modou Fall Cissé ak mboolem taalibe yi fa waaye ci États-Unis Amérique Baye Fall Ndiaye sëriñ bi daal nee na mi la set mi ngi koy